La fédération bu acteur ngir développement bu amal tournoi football ci zone 12 bu de ngir rataxal ak de équipe bu nekk la gox ci ab final bu doxoon ci la Salam ak bu baax ci bis bi ba di ci indi ay di aussi ci final quoi parce que franchement euh, le développement n'est-ce pas d'une localité peut passer par euh, par le sport euh, à travers les jeunes légui li day day day Euh, à Boune par exemple y a des acteurs qui su leen jàppale xam nga li ma euh, bi mën na mais maintenant à travers le sport. vraiment gis naa fi ñu mu fi gëj a gis ah, gis naa fi ñi nga xamante ne yàgg na lool ma gëj leen gis te football day boole te maa ngi ñaan yàlla ñu ñu ko ci bisimilah rahmaani rahim ñu génn si alhamdulilah rabil alamin euh, ñi tax li am seen objectif seen mbébét yàlla dimbali leen. suñuy doom lañu fii la ñu dëkk lépp lu ñuy def rek dañ koy rafetlu a ah, Moussa nag bu ci dugalee loxoom lépp lu war si ASC e bi mu def ko rek ñun ñëpp dañuy gën a kontaan. Pape Moussa Camara di njiitu fédération bi di ñu xamal ni dañoo taxaw temm ngir rattaxal diggante équipe yi ngir ñu ànd doon benn. di féliciter équipe yi bon di féliciter aussi les participants aussi. mais di féliciter tamit toute la communauté de Boune ta xamné tamit c'est Boune qui gagne quoi li yëpp bon c'est juste pour le départ pour ñu jàppale leen ñom ñu am taxaway pour euh, mën démarrer seeni activités parce que euh, on est dans les vacances c'est des activités de de vacances bon actuellement ni ñu fas taxaw jàppale tamit ñun tamit suñu gox ñu mën a siggi ñon tamit gis seen bop comme yenen gox yëpp daal. bitu journée bi aussi tamit c'était juste encore pour euh, réconcilier équipe yépp jàppale leen ñu ànd doon benn te xam ne ñoom ñëpp bun lañ dëkk te xam ne lu ñu fi mën a am tamit ñoom ñëpp buun la lay dellu si te xam ne tamit euh, buun moom mooy seen fierté donc ñu war a mën a ànd nekk benn te xam ne buun mooy gañe daal. moom ba tey mi ngi woo bépp ndaw ngir ñu dox jàmm ndax ñoom ñëpp ñoo bokk gox bi. message bi ñuy lancé euh, mouvement nawetaan yi moom mooy ñu xam ne lii activité de vacances la kaf foo ree la. pour ñëpp tamit nañ ko jàppee noonu amul violence warul mën a xajul sax si suñu diggante ndax déjà bu nekkoon ñu nag keneen ñooy joué wala ñu ne beneen dëkk ñooy joué sax dafa war a nekk dans le fair play rawatina nag mu lekk benn gox boo xamante ne tey boole yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla mais bu fi kenn gaañoon tamit boo moytul di nga gis ay mbokk yu jug dem jaale ju ñooñu donc pour vous dire que dara xaju fi du jam donc nañu démarrer activité bi si fair play terminer ko si fair play et que le maire gagne quoi loolu rek lañ leen di souhaiter ñom ñep ci noné ñom ñaari capitaine yi podox ndolu nañu ca gi gërëm pa Moussa Camara ci initiative bi. supporters yi war nañ mëna a jappalante parce que ñun joueur yi on est en famille comme ni mo la ko sang on est en famille tey jii su ma rombee Tidiane dama koy bëggee su ma daf may bëggee su wax mën naa ne damay wax ak mais après su monsieur Camara moom macha allah kontaan ci trop trop trop les équipements sont de bonne qualité gis nañ ko les ballons même chose vraiment ça va nous aider quoi ça va nous aider pour les activités euh, de navétane vraiment daal xam naa ne jàppale na équipe yi daal lii vraiment defuñ lu dul kontaan ci. mbooleem ku teewoon ci final ba rafetlu na lu nu mel ndax nekk na luy gën a boole askan wi ba noppi di ñaax waa fédération bi ngir ñu gën a jàpp ci liggéey bi.